haay asalaamaaleykum nuy naa bu baax a baax ak foo mënta nekk ci senegal wala sax bitim réew alors est-ce que xam ngeen naka la ñuy defaree jollosu wala téléphone portable yi nga xamante ni moom la jëfandikoo bés alors su fekkee nag loolu la ay ca dem waxtaan ci loolu ci podcast juróomi simili jollosu wala téléphone ci nasaraan. suñu koy saytu bu baax a baax dañuy gis ne am na ay pàcc yu bari bari yu nekk écran bi batterie bi appareil photo bi haut-parleur bi maanaam fu ñuy déggee micro bi maanaam fu ñuy waxee am na aussi ay bouton ci wet yi ak coque bi nga xamante ni moom moo ëmb lépp waaye loolu yëpp nag mooy li nga xamante ni moom ngay gis mu pare taaru lool mais li ñu mooñale ci biiram dafa bari torop lu ëpp juróom-ñaar fukki mbir lañu mooñaale mooñaale ci biir lu ci mel ni plastique ak ay matières synthétiques ñu defaree chimiquement à partir ay këriñ wala pétrole utiliser ko pour defar jëmm téléphone bi maanaam coque bi mais aussi pour que circuit yi nekk ci biir téléphone bi bañ a maasante maanaam isolant yi ci nasaraan ba léegi ci téléphone bi am na li ñuy wax cuivre nga xam ni moom la ñuy jëfandikoo pour defar circuit yi nekk ci biir téléphone bi nga xamante ni mooy jokkalante pour que courant bi mën a jàll. am na aussi lu ñuy wax lithium ak ay substances chimiques lu ci mel ni magnésium carbone cobalt et cetera mais dinañu ñëwaat ci loolu ci kanam tuuti. beneen matériel bi am solo trop aussi mooy verre ak céramique bi nga xamante ni moom moo nekk ci écran tactile bi. ginnaaw loolu aussi am na yeneen fer comme zinc étain. chrome nickel ay métaux précieux yu ci mel ni or xaalis wala platine mais aussi lu ñuy wax ay terres rares wala ay métaux rares ñu am solo lool lool ci téléphone yi alors lan la ñuy jëriñ maanaam terres rares yooyu noonu fan la ñu nekk ak fan la ko constructeurs yi di jëlee ci àdduna bi alors terres rares nag ay xeetu métaux la ay xeeru xeetu weñ la yoo xamante ni dañu koy jëfandikoo pour defar ay matériels électroniques yu bari ñoom nag ci suuf si lañu nekk waaye pour génne leen dafa laaj énergie ak ndox bu takku parce que tuuti lay doon ci benn suuf boo xamante ni bariwul donc soo jëlee écran téléphone yi météo yooyu moo tax ñu am écran tactile ak lumière bi nga xamante ni moom lañuy gis ci mais aussi couleur bi nga xamante ni moom la ñuy gis ci biir météo yooyu moo tax ñu mun ko am soo jëlee batterie bi am na li ñuy wax lithium nga xam ni mooy denc courant bi nga xamante ni moom la téléphone bi soxla pour dox dina am ci biir lu ñu naan ay cobalt graphite mais tamit tuuti or pour doxal jokkalante bi ba léegi nag ci terres yooyu nag aussi dañu koy jëfandikoo ci carte électronique bi nga xamante ni moom moo yor motooru téléphone bi alors métaux yooyu yépp nag nekk ci biir téléphone bi ci partie électronique bi ci ecran bi ci batterie bi ci coque bi ñoom ñépp nag am na fu ñuy jógee ci àdduna bi métaux précieux yi Euh, yu ci bëri boo xoolee ñoom ñu ngi jógee ñu ngi jogee Pérou mu ngi nekk ci Amérique du Sud wala Australie terres yi nag ñoom lu ci gën a bëri ñu ngi jógee Chine métaux yi tamit euh, yu ci mel ni cobalt tantal ñoom ñoo ngi jógee Afrique fii ci Afrique surtout Congo wala Rwanda mais aussi Chili Brésil wala Chine euh, bari na trop ay métaux yoo xamante ni ñu ngi leen fay jëlee lu ci mel ni lithium indium et cetera alors composants yooyu yëpp nag bu ci nekk dinañu ci fekk. tuuti ci biir téléphone bi imagineel at bu nekk nag at bu jot dinañu jaay ci àdduna bi lu ëpp benn milliard ak genn ci ay téléphone ci marché yi donc ressources yi war nañ ci xalaat bu baax a baax a baax baax ak lii ban jeexital la mën a am ci suñu environnement bi parce que ñu ngi chaque jour ñu ngi euh, utiliser ressources yooyu di leen génnee ci suuf si donc nag ci sama xalaat saa soo teewee sa téléphone rek sa xel war na dem ci loolu bu baax a baax. ci beneen épisode bi di ñëw dinañu waxtaan ci jeexital yi nga xamante ni lii nii mën na ko jur ci suñu environnement bi. alors ku ci nekk plateforme wala application bi ngay jëfandikoo ngir mën a déglu podcast juróomi simili bi mën nga ci abonné wu mën nga ñu aussi noter maanaam defal ñu ay étoile pour que podcast bi gën a law alors épisode tey bi nag entreprise bi ñuy wax Dux moom moo ko sponsorisé di yëngatu ci wàllum livraison fii ci Dakar. képp ku leen bëgg jot nag mu nga leen woo ci numéro 78 173 86 86 wala 76 dinañ def information yépp ci description podcast bi merci ciao ba suba